ñu dalal waa Thiès sa ñaari waajur màgg jàng xam-xamee ba defe ni lu ma waay laaj rek war naa ko war mën tontu waaye chaque jour benn question rek di ma të te mooy man la kan man te saa su ma ko laajee su ma yëkkatee sama loxo sama loxo laa yëkkati su ma ko tegee ci sama kanam ci sama kanam laa ko teg su ma ko tegee ci sama dënn ci sama dënn laa ko teg su ma tuddee sama tur sax sama tur laa tudd donc man la kan man man la kan man mais man nu ma mënee nekk yow nekk yow nekk yow su ma ni man ma ni man ma ni man c'est parce que ñun ñett ñëpp munoo see ñàkk kenn yéen yow la kan. man la sa dimension physique. physique yow la kan. man la sa dimension mentale. mentale yow la man la sa dimension spirituelle. physique mentale spirituelle. ah ok mais yow physique lu tax nga ne yow man mënuma manqué ci yow wala boog yow mënoo manqué ci man mënuma dem sans yow. jàngal njëkk ci sa bopp muy sa environnement. balaa ngay sonne li la wër te muy sa juridiction sonnee ma ngir bañ a sonal sa bopp yitte nga ko war a def wareef la ci yow nga wormal ma sàmm ma te caytu ngal la yow nit bul topp samay ñoñ ba sàggane sama yokkute dee ma noppal noppal yow xanaa waxoo yow ma sonn ci yow ko lu tax ma lay noppal ahankay dee ma noppal wante bul topp sama bëgg-bëgg ba tawat yab ma wala réeroog sa borom di la ci fekk. yow mi mën ngaa tax man ma réeru ak sama borom. waaw waaw ndax tey man yaram boo ma bëggee ba sàggane samay ñoñ jotu asamaan dal sa kaw wante itam boo bëggee samay ñoñit ba sàggane ma yat wi du la tekkiku de ma ne yat wi du la tekkiku nga la nit. sang ma dundal ma te dem a tàggat maanaam loolu ñuy tuddee sport ndax sa évolution dama ci am wàll bu bari sa julli sa koor sa aj màkka ak sa dox yóbbu zakat lépp maa ngi ci biir dëgg la yow physique man bëri na lu ne léegi mënoo manqué ci man lu tax mooy njëriñ bi nga tudd pour man donc yow man am la mooy sama noflaay yow doy nga ma sëkk léegi nag man man naa waat ni xam naa sama bopp ndax sama xel mi ak leneen lu mu jumanti doon doy na ma sëkk man mën naa dem sama yoon mën naa dellu sama kër hé baa yëg nga ni peegoo sa bopp gëm gi nga gëm sa bopp ba réeree nii réer dina la dikkal de te si musiba rek nga lay dugal mu yow lii ñuy woowee xel mbaa xam nga ni mësumaa def lu ma xamul ci ngóor kon luy nga rëccu ci sa dund du li nga xam lépp daa gën may ma tuuti rekk ma xamal la ni la man mental àdduna lëmb la conscience ak inconscient maa ko dëxëñ conscience mi nga xam ni boo jaaree fa nga war a jaar soreewul ak kër yàlla. donc da nga bëgg a wax ni yow ci sa biir la ñu dëxi ak inconscient te conscience mooy ki nga xam si ne moo lay dëgtal li baax ak li bon li wér ak li wérul loolu nga ma bëgg a wax. ah bien sax boo xamul ni nga may jëfandikoo ma soril la ko. nga soril ma lan. ndax neex uh-huh. neex. ban neex. yëg-yëg léeni alimenté maa ko dëxëñ ndax inconscient doo ko génnee si man ndax mën na laa dégtal wax ju waxuwul ba jëf ju jëfuwul ah bés nag bu tàbbee ci kàmbug inconscience wame kon yow xel loo bëgg ma def ko samay bëgg-bëgg ak samay namm-namm parce que tamit nag man du lépp lu ma bëgg rek loro nga ca ah moo tax nga war a seetantal te xàmmee li nga namm ba du la gaañ ak li mënul ñàkk si sa dund muy say besoin muy samay besoin merci beaucoup jërëjëf xel lii lañ naan pour savoir savoir parfois nit dina jàpp ne jàng na xam na ba xàmmee te fekk na buubu la war a commencé jàng comme ko commencé naa jéego yi te commencé naa xam fan laa war a jëm mais yéen dafa mel ni ñett ngeen woon yow yaay physique mi mën te ñàkk ci man yow yaay mental mi nga xam ne seen yow it mënoo ñàkk ci man waaye dafa des benn boo xam ne bu ñëwul du ma mat te yéen a ko wax muy ruux ruux lu tax ngeen ne yow ma dem sans yow c'est parce que man maa yor sa wàllu yàlla. sama wàllu yàlla. man ruux sa wàllu yàlla pour sa évolution mën a mat man maa ko yor. donc da nga bëgg a wax ni pour ma yegg ci suñu borom ci yow rek laa war a mën a wékku. attention waxuma loolu de dama la ni man ruux sa évolution pour mu mën a mat ci laa bokk signifié wul ne man la kese ndax sama ñoñ bii di physique. ak sama ñoñ bi di mental ñun ñett ñii pour sa évolution mën a mat il faut nga boole ñun ñëpp liggéey pour sa évolution mën a mat. mais man ma jàpp ni dama war a dem concentré wu ci sama physique ba sama yaram baax ma mel ni ma war a mel ba ku ma xool gis ni kii jekk na su ma noppee dem ci sama xel liggéey sama xel ba dara du ma jaaxal ci kër àdduna su ma noppee soog a ñëw ci yow ruux. non non dama koy defi parallèlement instant bi nga may liggéey man ruux. ci même instant boobu ci ngay liggéey physique ci ngay liggéey mantal ñoom ñett ñëpp parallèlement nga leen war a travailler ndox dafa am benn affaire bu ndaw nag bu ma la wëgg a wax ñu bëri saa yu ma tuddee xel yépp ci religion la fay dem te ñu ne man nag religion bokkuñu parce que religion école la te man ruux expérience la gis nga école boobu di religion directeur bi mooy Malikal Mulki trois programmes la am le judaïsme le christianisme et l'islam te nag comme nee naa la ruux expérience la école bi nga xam ni mooy religion moo lay jox teggin yi nga xam ni mooy tax nga mën a def expérience bi exactement jërëjëf ruux kon yow ba léegi pour ma si ci yow mën naa rey sama bakkan <laughs> malheureusement malheureusement ñu leen di rey mooy dañu jàpp ni bu ñu bëggee matal seen wàlloon wax dañuy jàpp seen bakkan torturer ko rey ko toroxal ko not ko alors que non tel ne doit pas être le bakkan du adversaire lu mu doon bakkan du adversaire kenn du ko rey kenn du ko not dañ koy yar dañuy yar bakkan mais kenn du ko rey jërëjëf ruux jërëjëf ruux biir na ma ni sa naataango yi bañ a mën a ñàkkee ci man yow it mënuma dem sans yow léegi nag xam naa la attention be careful xamoo ma de xam nga lan moo tax xam nga lan moo tax lan moo tax est-ce que xam nga lan moo tax dëgg-dëgg xawuma ko mën na ko xam mën na ko xam est attention attention jarul si jaar gis nga bañ ko laajee moom yent bi yàlla xamul lu mu ko digal ah. buñ la laajee wàllum del delloo ko ci sama borom rek ndax moo ko xam kon mooy wa yasaluunaka ani ruux quli wa ma utitum min al ilmi illa qalila jërëjëf ruux actuellement mën naa gëm ni man mat naa donc langue gi langue gi ñëpp la physique kaay jërëjëf mental kaay jërëjëf spirituel kaay jërëjëf man gi tëdd fii de mooy sama noyau humain kon néew ba tëdd sama kanam njortu naa ni doomu aadama la parce que wóoruma waaye njortu naa ni doomu aadama la kon man mi juddu tey ñu may woowee nit ki tax ba ngeen xam li ngeen xam parce que aussi wolof mooy wax bu lëg nekkee olom na ko gëlëmee na ko gërëmee coy kon ki tax ba ñu xam lii tey est-ce que jarul ñu sant ko kon nag Dieu capitaine thank you kon nag jërëjëf capitaine mi tax ñu xam suñu bopp xam ne war nañu évoluer ci ñetti dimension yi dimension physique dimension mentale dimension spirituelle mais surtout nga xam ne boo bëggee évoluer nekk il faut sa pureté nga xalaat ko ah waaw waaw évaluation bi du daaw kese de ren da ci bokk ren def ci bokk ma xool premier thème bu dimension wala bu pôle physique bu ren kan moo ko xam yée ana waa pôle physique kay xamuñu seen premier thème ku ko xam am na ñuy xool ci portable yi de ki ma gis sànq ci portable yi la xool premier thème physique kan moo ko xam si nee na xam na ko pureté et légèreté au jour le jour waaw waaw pureté et légèreté au jour le jour kon ñu gërëm waa comité de Thiès ci prestation bi ñu def am na solo biñ koy def samaa ngi xalaat fan laay ñëwee man waa man waaye